wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat eh, sëñ Bara ñu lay nuyu di la ziar di la ñaanal yàlla mbàkk yàlla yàlla guddal sa fanta may la wér eh, wax ñi nag du gudd ndax ni ni mbir mi demee waaye oto bii daal bu ngeen noppee leen rek laan ñaan ngeen dem ba montagne ngeen wàññi koog moom mu riir nag bu baax ba nit di dégg ko eh, sëñ bi da nga wax ne département Mbour dañu bëgg raw ci gaañi ñu ne dañu bëgg raw ci département Mbour loolu lañ bëgg eh, Ousmane mii liggéey bi ñu ko jox matal na ko sëkk fii mu ne sax dafa am loo wax léegi dafa ñu fekk dañu bëggoon tey renforcer ko ay nit ñoo xam ne fii ci biir dëkk bi dañoo bëgg mën daar kàpp dëkk bi tam complètement ba mu jeex eh, dëkk bi li fi nekk ci murid bu fi génnoon murid dëkk bi day af waaye luñ man incha allah ci waxtaan wu ngeen fekk danañ ko renforcer jëm jii ndax passé fam ñun ñëpp xam nañ ko liggéey bi amul bëccëg amul ngoon amul suba barki démb ci biñ génnee ci juma ci jàkka ji la ne ma ne tey ci liggéey bi laa gontoon defe naa fii mu nekk nii daayir bi ci góor ñi ak jigéen ñi eh, ñaar téeméeri loo tuuti moo ko manqué dañoo bëgg tey juróomi téeméeri yoo xam ne yoo xam ne bés waxtu weer wu ne ñu verser ku nekk 1000 francs ñu yóbbu ko ci liggéey Serigne Touba ñun dañoo am chance chance bi mooy dematuñ toolu àllarba dematuñ feneen dematuñ feneen man mii doxee yow tool Serigne Fall ba nekkul mbët daanaa ci dem. waaye tey ñii nga xam ne ñooy tuttànk yi nekk sama ginnaaw xamuñu tool booba waaye 1000 francs yi ngay joxe nag boo ko joxul fi jox ko feneen jox ko Sëriñ Tuubaa du lakk du maxe du réer te ëllëg si biir mu am nga soxla yow man xëyaam ku dem réccu ndax loo def lu baax lu ne boo demee da nga ma réccu ne bu ma yëgoon yokk boo def lu bon loo def rek boo ne bu ma bu ma du ma du ma def leen toll sëriñ bi jërë ngeen jëf ñun daal fa mu amuñu lu dul sant ak ñaan Tuubaa ci kanam dama ne leen dafa ndar ndar képp lépp lu taalibe bu doon def lu taalibe bu doon def leen Tuubaa ci kanam ndar képp na ko bu fekkee ca social ba Touba ci kanam Ndar képp na ko bu fekkee ci physique bi tubaa ci kanam Ndar képp ko kon ñun fii mu ne lenn rek mooy mooy suñu mooy suñu wareef moom laay digal sama bopp di ko taali bi di ko digal góor ak jigéen mooy lii nga xam ne mooy 1000 francs yi bu kenn xaarati Ousmane Seck ñëw di la ko laaj waxtu le premier jotatee ku ne nag jàppal na mi indi ko yéen a ngi dem natt yi ñu ngi dem ci feneen ak feneen amul benn njëriñ du dem fenn lii nag ku soriñ Touba nag loo ko jox lu mu defal ko raw li la rek mooy sans pas pas mooy su Pastef dañoo bëgg mbuur ñun ñoo ci raw ñëpp ñëpp daayira mbuur yëpp ñun ñoo ci raw dañoo bëgg fu ñu tudd daayira ci premier ñu tudd gaar daayira leen di sant di sant sëñ Mor Sourang bu baax parce que liggéey wax dëgg yàlla euh, mooy Mor Sourang moom itam ñu ngi koy sant bu baax di sant Aliou Konte mi nga xamee ne moo ñuy indil euh, yi sant mbokki taalib yëpp te xamee ne liggéey bàyyi noonu di laaj lañ man di ko def fu ñu xam jërëjëf. keroog bi sëñ Ousmane ñëwee na. daa bëgg ñu sos Touba sa kanam ñu ne ko daayira bi moom lépp la xajoo boobu ba léegi li lépp luñ si man ñu ngi koy def bi mu waxee ne tamit yéen a ngi ñëw li mboolem luñ jàppoon dëkk bi lépp li Baye Balla day wax ne bu fi murid yi jógee dëkk bi raaf loolu dëgg la dëkk bi murid yi ñoo fi ëpp te murid yi am pas-pas lan sur Ousmane su usmaan mii murid la boo xam ne du deltu ginnaaw mukk ñun ñu topp ci si ginnaawam deltuwun ginnaaw te ñun ñoo tax mu ñeme ndax nit bu jiitoo ñu nekk si ginnaaw mooy tax ñu ñeme ñun nag amuñu lenn lu ñuy def lu dul liggéeyal Serigne Touba ndax lii Serigne Touba da ko tuddoon bu yàgg yàgg wax ne Touba li koy defaral ci murid yi lay jógee.